décision du conseil man le titre là le dialogue l'ultime paravent dinaa ci ñëw. on demande. non nekkul warul woon nekk un titre. on demande. non je warul woon nekk demande non c'est nous qui jugeons de l'opportunité. non non non dinaa la wax lu tax on pose une question. le conseil constitutionnel le non non non j'explique pourquoi parce que le titre rien qu'en posant la, la question souvent on a la réponse. et c'est c'est c'est pas warul woon nekk titre bi au contraire le conseil a enterré le dialogue. comment dinaa ci ñëw calme nee na déedéet dam leen ngeen waxtaan yow non li ngay wax loo conseil sincèrement nekkul ci texte bi dinaa ci ñëw point part ndax ñun ñoo ñun ñu bind recours yi xam nañ lan lañ bind lan lañ ko demandé parce que gis nga décision boo amee avant di nga xam lan la conseil bind donc ñun xam nañ fond bi xam nañ fond bi donc bu conseil bindee ñun xam nañ lan lañ ko laajoon lan lañ bind lan la reprendre ci décision bi ci luñ bind gis nga da ngeen ni yéen vous êtes allé dans votre forfaiture au-delà de l'imaginable parce que xam nga bi ngeen koy def seen article 31 bi xamoon ngeen ni c'est illégal de xam nga lu tax ngeen def ko vous pensiez pouvoir vous réfugier derrière l'injusticiabilité d'une loi constitutionnelle yéen da ngeen ni dañuy violer constitution bi mais ginnaaw le juge est incompétent il y a aucun souci on va avaliser notre forfait di ngeen koy bind fàtte woon ngeen la jurisprudence 2021 moo tax boo nee nouveauté la soxna euh, kii euh, Maymuna dama naan la du nouveauté de le conseil li mu wax dafa leer te 2006 la ko wax nee na man de duma dugg ci loi constitutionnelle mais mais daf cee teg mais nga naan dafa waroon déclaré wu incompétent daf ci teg mais dafa ni les conditions d' adoption de la loi nee na ku ma indi une loi constitutionnelle nga ni ma rek loi constitutionnelle la acca man la déedéet est-ce que trois cinquième des députés ñoo ko voté nee na bu ma vérifié wul loolu c'est pas une loi constitutionnelle boo ma permettre wul ma vérifié ko nee na je vérifie les conditions d'adoption les conditions d'approbation ba pare ma soog a dugg ci article 107 parce que lu tax mu grave si on vous permettait cette farce là cette forfaiture mais demain vous pouvez toucher au mode d'élection daal di dootul deux tours par dérogation parce qu'il y des inondations élection yi dafa fekk une grande vague de chaleur mu ne je vérifie à minima te ab 2016 sax yokku na ci valeur parce que ñun on a évoqué le principe d'un ordre public constitutionnel boo xam ni conseil constitutionnel daf ko war a vérifier mu nekk ay normes ak valeurs yu dépasser les limites matériels et temporelles dont parlait kii parce que tey su la neexee nga ni le droit de propriété est aboli c'est pas une norme matériel c'est pas une norme temporelle mais ay norme ak valeur constitution bi la le droit de propriété bu leen neexee ngeen ni le secret de correspondance est aboli parce que jàpp ngeen ni avec une majorité pou pouvez tout faire loolu la conseil bi wax deux 2006 loolu la ñëw dafa ni je vérifie ñetti mbir limite temporaire temporelle mooy bu ñu nekkee démission président suppléance article 52 je vérifie réellement si mën nañ def révision constitutionnelle c'est les limites mu ne les limites matérielles dinaa xool lan moo nekk ci article 107 et il l'a cité en 2006 daf ko cité 2006 bi ñuy réduire mandat député mu ne leen tant que ñu ngi réduire mandat député. non bi ñuy proroger. bi ñuy proroger mandat député mu ne tant que laaluñu limite matérielle mandat député amul limite matériel pour wàññi ko nee na constitution bi protégé wul mandat député protégé wul mandat conseil municipal te article 107 tuddul protection mandat député. kon bu leen neexee wàññi je ne suis pas la pour juger mais ku def limite matérielle ak limite temporaire dinaa ak article 107 damay vérifier et c'est ce qui s'est passé mu ne leen vous voulez à travers cette révision ce report de l'élection prolonger le mandat du président te 2007 li mu waxoon ci texte constitutionnel bi ngeen ñëw jë bëgg ko def base pour la troisième pour le troisième mandat naan nee nañ disposition bi dugg na fii conseil dafa ni woon 2016 lu yomb Macky Sall du la bàyyi nga wàññi sa mandat c'est vrai conseil bi ñu bëri critiqué woon critiqué woon nañ ko. vous n'êtes pas conséquent. en kay dafa daan pas xaaral rek bu dagg loolu après naa la expliquer dafa ni woon Macky Sall xam nga lu tax du la bàyyi nga wàññi sa nga yokk nga wàññi sa mandat suba su nit ñëwee di ko yokk par le même procédé du ma ko ko mën tere. et qu'est-ce qu'on xaaral et mu teg ci nii te li ngeen xamul mooy. à partir de 2016 te avis la woon mais décision la dafa ni à l'occasion des révisions les mandats électifs yépp la kenn mënatu ko wàññi une fois joxe nañ waxul le mandat présidentiel les mandats électif kenn mënatu ko wàññi donc tey bu ñu ñëwee conseil bi jël saa décision ngeen jël considérant 14 bàyyi 20 bàyyi considérant 14 naan lan mooy solution xam nga lu conseil wax damay rappeler mandat bi kenn mënul yokk Macky Sall benn fan kenn mënu ko yokkal une kenn mënul yokk deux heures que ce soit moo bëgg a yokk que ce soit ñeneen ñoo ko bëgg a yokkal que ce soit da ngeen yokk élection bi muy entraîner ñu yokk mandat bi est ce que loolu leer na ci considérant 14 bi d' nañ nee na le mandat ne peut l' élection ne peut être au delà du de, de la de fin d' expiration du mandat loolu dañ naan d' accord nañ ci wala d' accord nañ mu ngi ci texte bi wala nekku ci le report de l'élection présidentielle ne peut pas se fair au-delà de la durée du mandat tubaab la mais kenn mënul reporter xaaral ma ñëw kenn mënul reporter élection boo xam ni day génn suñ ko reporter benn fan benn heure cinquante minutes cinq jours cinquant ans parce que boo gisee mu dindi li ngeen def dafa ni au départ vingt cinq août ngeen waxoon après ngeen dem quinze décembre su leen neexoon yóbbu ko deux mille vingt sept su leen neexoon du yóbbu ko 2028 moo tax mu ne du ma nangu ay majorité di falsifier constitution léegi dafa ni considérant 14 je rappelle les principes l'élection ne peut pas être reportée au-delà du mandat du président loolu da koo bind leer na ñun ñoo ko demandé mu def des ajustements pour permettre à l'élection de se tenir pour tenir compte des jours de campagne perdus te conseil bi il ne s'est pas adressé à Macky déedéet. c'est adressé à qui. dafa ni dama la ñuy wax il demande aux autorités compétentes il n'a pas dit au président de la République. waaw léegi mooy moom mooy le considérant. Euh, 20 20 considérant que le Conseil constitutionnel. constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes. Waxaatal invite invite les la République à la tenir Merci. dans les meilleurs délais. très bien moo tax man la da ngay def ndànk nga déglu. ah conseil bi li mu wax considérant 20 bii du nekk seen bâton de pèlerin pour ngeen yokk élection yi au-delà du 2. mais kan ma war a organiser l'élection xam nga ñun ñi ko demandé dafa ni da ngay lire li mu ci topp mu ne le conseil su bëggee remplir mission moom yorul administration xamul ñaata bureau de vote. lañ yóbbu bureau lañ yóbbu matériel day bàyyi aux autorités compétentes ñu fixer une nouvelle date en tenant compte de ses limites à l'article 4 le considérant 14 on ne peut pas aller au-delà du 2 mu ne comme que nag man organiser wu ma élection matériellement aw ma nit ñi je laisse aux autorités compétentes le soin de proposer une nouvelle date qui ne doit pas sortir du 2 avril. léegi autorité compétente. léegi mooy autorité compétente xaaral ma wax le décret de convocation du corps électoral moom laa lay la xam nga lu ci am il y a le président qui doit signer. il y a le ministre qui doit prendre des. mais c'est l'exécutif mais déggoo ma il a dit les autorités il y a la Sénat qui doit superviser dafa ni autorités yi pare leen mais ce qui est important dans le considérant 20. c'est la limite posée au considérant 14 Macky Sall ne peut pas faire jour de plus bu leen jël considérant vin bi def ko benn genre totem bëgg nga fàtte le 14 la limite elle est fixée deuxièmement conseil bi dafa ni dialogue amul la fin du dialogue da koo da koo da koo décrété nee na Macky Sall mënoo defati dialogue. ni mu ko fan la ko waxee. ah kay. <laughs> fan la ko waxee. man déggoo ma da ngay lire faut savoir lire. un texte de droit parce que texte de droit c'est pas du français kese le conseil da ngay dem lire sur la recevabilité xam nga ñan ñaata ñaata recours ñoo daje ci conseil constitutionnel ñett le premier recours c'est le recours des candidats qui ont attaqué seulement le décret parce que boobu la loi n'a pas été votée ils ont attaqué le décret conseil bi ni ils ont en net daal di reprendre la mu waxoon ci listam mu ne vingt personnes euh, sept candidats yi ma saisir sont des candidats kon ils ont un intérêt légitime il rappelle que les seuls candidats mooy ñi mu bindoon ci listam donc dialogue mënul am pour inclure de nouveaux candidats moo tax man la texte de loi daa am nañu koy liire Macky Sall gis nga texte bi mu signé tey son communiqué il parle de consultation il parle pas de concertation la concertation c'est dans le but de trouver benn compromis une consultation je viens vous informer xam nga luy différence entre un euh, déedéet déglu na terme droit kaay ma wax la concertation consultation bons offices médiation bokkuñu terme et la différence parfois n'est pas de degré mais de nature mais consultation yi ñan lay consulter ñan lañ ko sant nag cette fois-ci mu consulter la classe politique mais on demande de les candidats pour mu trouver ak ñoom les bonnes dates. mais ça t'a mis dans le. attends c'est mais li ma lay wax mooy. le conseil a dit que les seuls candidats yi mu reconnaître kan ngay defal consultation Karim Wade un candidat recalé moom dafa ni mag il reconnaît dans son benn ceux qui ont un intérêt légitime à faire un recours ce sont ces les les Mame Boye Diao Cheikh Tidiane Dièye Bassirou Diomaye fay euh, Malick Gakou ils sont à avoir fait un recours peut-être Anta Babacar et je sais nee na ñii ils ont un intérêt légitime à me saisir parce que ñoom laa reconnaître comme candidat léegi Macky Sall su demee ci ay recalés di wax ak ñoom sur la date de l'élection alors que l'élection ne peut concerner que les candidats mais même si Macky Sall s'adresse aux candidats à la à la et à la Sénat. waaw ah. euh, du dialogue. loolu du dialogue non le dialogue mooy lan. du dialogue ngeen di woowee dialogue ak Macky Sall dama bëgg terme yi ñu leeral ko. dialogue politique moo doon est-ce que on acte le record le report une fois qu'on a acté le record dañuy jéem a élargir dañuy jéem a fexewaat ay nit ñu ñu spolier ci processus électoral bi bokkaat n'est-ce pas c'était ça le but du dialogue fii dialogue amu fi nee na ko y'a un seul une un seul scrutin qui reste valide et valable et ce scrutin là kenn mënatu koo changer kenn mënatu koy soppi c'est terminé il faut juste fixer la date yéen yéen a propose yow. que je propose mooy li conseil bi wax le 3 mars le 10 le 17 le y a des dates xaaral xaaral ma conseil bi li mu leen wax mooy le premier tour gis nga bi mu constaté une impossibilité de tenir l'élection le vingt 25 gis nga conseil su constaté impossibilité il laisse la latitude au président aux autorités exécutives ñu trouver des aménagements même su amee dérogation vis-à-vis de la constitution mu nekk ay dérogation mineure sur la durée sur les dates parce que dafa constater une circonstance exceptionnelle muy l'impossibilité de tenir l'élection le 25 mais li mu leen wax mooy ne pensez jamais que vous allez il vous ouvre une voie parce que considérant 14 mënta tëb 20 bi mënta fàtte 14 l'élection doit se tenir le 2 avant le 2 avril le premier tour le second tour et la passation de service un jour de plus une heure de plus nee na Macky Sall mënuma la ko àttal donc titre bii mënul woon nekk titre li ñu bëggoon wax mooy da nga waroon bind Macky Sall dos au mur avant le 2 avril. non loolu moo waroon nekk titre. si si si ma li may samay titre si si si désolé Macky avril. non mais parce que le dos au on lui demande injonction bi ko xam nga le le conseil ne va pas dire à Macky Sall ay termes dans les plus brefs délais le conseil ne s'adresse pas. à l'institution suprême. Quand il dit meilleur délai, c'est un euphémisme pour lui dire dans les plus brefs. Parce que le 2 avril est une date butoir te mënoo leen ko jéggi. Ah, non mais du bu ma lay wax les plus brefs délais il dit c'est pas un langage qu'utilise un un un, un non je commande texte. li ma la wax mooy. le considérant 14. fexeel na ngeen fexe ba bu leen ci génn. vous allez nous expliquer quand le conseil a dit de façon textuelle je cite hein, le mandat l'élection présidentielle ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat si vous me dites en français ah, s'il vous plaît si vous me dites en français que ce considérant 14 qui pose parce que foofu le poser tous les principes considérant 14 pourquoi on ne peut pas reporter l'élection nombre bi durée bi tout ça mu poser les principes avec le cadre dem nag ba considérant 20 ni ko j'aurais pu fixer la date comme me l'ont demandé les requérants mais étant donné pour me ma remplir sama mission je vous laisse à vous autorités qui avez l'habitude de d'organiser l'élection de trouver les dates étant entendu que ces dates que vous allez trouver doivent correspondre obligatoirement mais Amadou juste une question mm -hmm. dialoguer c'est se parler avec qui moi, moi j'ai pas dit dialogue pour tout dama ne. Mhm. le dialogue c'est-à-dire Macky Sall tey bu waree daje candidat yi c'est dans le wax pas, pas un dialogue politique national. Ah, mais il vont se parler pour arrêter. Euh, li nga xam ne moom mooy les conditions de réorganisation de ce scrutin-là xam nga nu ko tuddee texam xam nga lu tax ah. il n'a pas choisi dialogue concertation parce que concertation mooy ngay laaj nit ki mu lay wax nga koy tontu il a utilisé le terme c'est-à-dire le degré zéro le degré zéro dans l'ordre bu ñuy wax négociation muy des consultations c'est comme quand le président a dit bi ngeen ko joxee seen avis bi assemblée il a dit j'ai consulté le président de l'assemblée j'ai consulté économique et social consultation mooy ma consulter la mais à la limite je vous demande même pa votre avis te consultation yooyu ñëpp xam nañu c'était même pas légal ah parce que kenn sant ko dañ ñu ko rek yow jëlal avis mais waxuñu ko sax mu dem consulter c'est ça des consultations je vous informe. donc que... yow sa position mooy l'élection warul l'élection beeg de de possibilité de deuxième tour bi war nañu organiser waruñu génn ci carcan wu 2 avril c'est pas moi mooy la fin du mandat. c'est le 14 l'inconsidérant 14 si le conseil a dit je l'article 31 est contraire à la constitution il faut être conséquent c'est parce que vous reportez le mandat présidentiel au-delà des cinq conseil moo ko wax léegi nag yam leen ci loolu avant le considérant vain qui n'est qu'une conséquence que vous voulez faire yéen ngeen bëgg ko def une cause merci beaucoup